أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نيونغي الدروس المستفادة من قصة ibrahim alayhi salaam bokk na ci dars bi ñuy jël tey mooy leçon yi ñuy tiire ci juddug isxaq alayhi salaam ak rendi guñ doon rendi ismail alayhi salaam dars bu njëkk mooy an al muslim yarfau daiman shiaarun jullit chaque jour dafay yëkkati ay mbir mbir yooyu mu yëkkati mooy lan samina wa ataana dégg naa damay topp dégg nañ dañuy topp loolu moo ko na ci melokaanu jullit su déggee day topp rawatina nag ndigal loolu muy dégg mu bàyyi ko ci yàlla ak yonentam fa yunafisu amrallah jullit day jëfe santaane yàlla hatta walaw kaana ala gayri muraadihi donte ne sax la muy jëfe yenn saa yi du dëppoo ak bëgg-bëggam donte ne la loolu lu yàlla ak yonent bëgg la rek day jëfee moom foofu rek la koy kal yàllaa ko santaane yonent moo ko jàngale jullit bi da koy def donte ne bu ko neexul loolu fan lañ koy jëlee ci biir dars yi mooy ra ay naa gis nañ kayfa anna ibrahima alayhi salaam baada ma razaqahu llahu bi waladi ismail alayhi salam baada umrin tawil ra'a ru'yan bi annahu yasbahu waladahu wa ru'yatu l anbiyai wahyun mu ne loolu fi ñu koy jàngee mooy ibrahima alayhi salaam am na doom yàlla may ko doom mu dund gudd fan muy Ismail ginnaaw dund gu yàgg mu gis ne gént ne dafa war a rey doom ci te yonent lu mu gént dëgg la mu daal di jóg ci lu gaaw tëral doom ji fas yéene koo rey sikki sàkkawul yàlla sant na ko rek jóg na def santaane yàlla loolu ab jullit war a mel yàlla santaane na mu jóg di exécuter julit dafa war a yor jikko boo xam ne su déggee yàlla nee na rek mu def du toog di xaar waaye waaye waaye waaye yàllaa ko wax mais yàllaa ko yox waaye yàllaa ko tey loolu moo ñu sonal te yàlla moom bu xasee wax julit lu mu war a jëfe mooy sami'na wa ata'na dégg naa damay jëfe kooku mooy benn ñaareel mooy anna allah taala yàlla mu kawe mi wax na ci qur'an wa man yattaqillah yaj'al lahu maxraj wa yarzuquhu min haysu la yahtasib ku gëm yàlla ragal yàlla yàlla dina la génne ci jafe-jafe yi problème boo am yàlla mooy intervenir loolu fan lañ koy jàngee ci leçon yi passé mooy raayna kayfa anna ibrahima alayhi salaam lamma qaama li yunaffisa amra allah wa yasbah waladahu jaalahu llahu lahu maxrajan min zalika ibrahima keroog bu mu géntee ne dafa war a rey doomam mu jóg di exécuter lool rek yàlla daf ko cee génne yàlla génne na ko ci ci génnin bu gaaw bu rafet fa afa anhuma yàlla jéggal na leen ñoom ñaar summa razaqahu bi kabsin raa fi ljanna arbaina sana yàlla may na ko wërsëgal na ko xar moo xam ne kuy moo xam ne yar nañ ko ci aljanna ñeent fukki at yàlla indil ko kuy mu toll moomu kuy moo xam ne sàmm nañ ko ci biir aljanna ñeent fukki at yàlla indil ko xar moomu li yakuna fidaan li ismail ngir mu nekk jotu pour ismail alayhi salaam loolu lan moo ko may ibrahim mooy dafa ragal yàlla ku ragal yàlla problème boo am yàlla génneel ci ku ragal yàlla problème boo am yàlla génne la ci yal nañu yàlla may ñu ragal ko Ibrahima a ngi nii am problème bu rëy problème bi ci gën a rëy mooy ren di doomam waaye yàlla bàyyiwu ko yàlla seetaanu ko comme dafa ragal yàlla yàlla intervenir indil ko kuy mu rëy ñu daal di koy jotoo Ismaïl alayhi salaatu salaam ñu daal di ren di kuy ma Ismaïl a daal di mucc ñetteel li ñuy jëlee ci dars yi moo na mooy anna ikraamu day fi waajib teral gan lu war la gan ku ko am da nga koy teral wa huwa min al imaani billah dafa bokk ci ngëm yàlla yi dafa bokk ci gëm alaxira ku gëm yàlla gëm alaxira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man kaana yuminu billahi wal yawmi al axir fal yukrim dayfa ku gëm yàlla gëm alaxira bu amee gan mu ko teral gan ci lislaam yàlla moo ne nañ ko teral loolu fan lañ koy jëlee ci biir dars yi mu ne raay naa gis nañ kayfa anna ibrahima alayhi salaam lamma jaahu lmalaika ibrahima ba ko malaaka yi dikkalee wa zanna annahum duyuuf mu yaakaar ne ñii ay gan lañ qaama bi suratin wa shawalahum ijlan saminan mu jóg daal leen di wàjjal wàjj mooy lakk mu lakkal leen nag yëkk mu duuf mu rey ko daal leen koy lakkal pour moom ay gan la am mais ndeke duñu ay gan ay malaayika lay lan moo tax Ibrahima jaawale gan yi ak malaaka yi lu tax hmm? parce que malaaka yi bi ñuy ñëw ci kaw suuf forme nit lañ ñëw barakallahu fi malaaka buy wàcc kaw suuf di ñëw ban melokaan lay jël melokaanu nit Ibrahima ba mu leen gisee ñu nekk ay xale yu góor yu rafet mu yaakaar ne ay gan la am mu dem ca gétt ga jël ca nag bu duuf rendi ko fees ko commencé lakk pour indil leen lu tax ndax dafay def sunna bi mooy teral gan mu ne ann al mumin ida jaatuhu l bushra jullit bu amee mbégte wa zanna annahum duyufun qaama bi suratin wa sawalahum ijlan samin jullit bu amee gan ibrahima nu mu amee gan dafa daw dem ca gétt ga rendi ci benn nag pour teral ay ganam yonent yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam nee na teral leen gan donte yéeféer la teral leen gan donte yéeféer la dangeen koy teral waaye nag buñ ne na ngeen teral gan sikk nekkul ni ci ne da ngaa war a defal gan gi lu araam déedéet gan gi day naan sàngara ndax da ngay dem jëndi sàngara hmm déedéet gan lu dagan lañ koy terale kenn du terale gan lu araam ñeenteel mooy anna almumin ida jaatahu lbushra aw jaahu ma yasurruhu fa innahu la budda an yatawajjaha bi shukri lillahi jalla wa ala jullit su ko mbégte dëkkalee kontaan te dab ko li ko war mooy mu sant yàlla saa yoo amee xéewal santal yàlla tabaraka wa taala sant lu war jaam la ibrahima alayhi salaam gis nañ ne keroog ba ko malaaka yi dikkalee bégal ko ne dina am doom lan la war a def lan la def dafa sant yàlla tabaraka wa taala julli tamit saa yu ko xéewal dabee wala mbégte dab ko li mu war a def mooy mu sant yàlla gis ngeen tey ñun bu ñu amee xéewal wala ñu sant yàlla ñun dañuy mooy yàlla tey nit bu amee doom ngénte jot naka lay ngéntee est-ce que musique sant yàlla la du sant yàlla jullit bu da bu ko bu toogee ba yàlla may ko kàttan muy takk soxna naka lay takkee soxna musique est-ce que musique sant yàlla la kon gis ngeen sant yàlla tabaraka wa taala lu war ab jaam la ndax ci ngénte rek la ñuy sant yàlla ndax ci ceet rek la ñuy sant yàlla yàlla jamono bu nekk dañ ko war a sant borom xam-xam ne nañ lan mooy sant ñu ne assukru tarkul maasi sant yàlla mooy bàyyi mooy yàlla yonent bi yàlla sallallahu alayhi wa sallam yoroon na ñaari ñaan ñaari ñaan yëpp cant la bu neexee day sant yàlla bu naqaree day sant yàlla yonent bi bu neexoon day wax alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu saalihaat su naqaree mu ne alhamdulillahi ala kulli xaal wala ñaar yëpp yonent bi day sant yàlla jullit war naa mokkal ñaan yooyu garde ko su neexee mu ne alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu saalihaat su naqaree mu ne alhamdulillahi ala kulli xaal juróomeel mooy ann almalaika ibadullahi jalla wa ala wa hum la yaakuluuna wala yashrabuun wa laqad aataahum allahu alqudra ala tashakkuli fi suwarati albashar malaaka yi ay jaami yàlla la malaika ibadullah alquran jàngale ne am na ci arab yi ñu doon wax malaaka yi ay doomu yàlla yu jigéen lañ te jamono jooju ñu naan malaaka yi doomu yàlla yu jigéen lañ ñoom bugguñu woon ku leen ne am nañ doom yu jigéen yàlla ne wa isa busira ahaduhum bil unsa zalla wajhu muswaddan wa huwa kazim kenn ci ñoom su toogoon ci grand place ñu ne ko am nga doom bu jigéen day kanam gi soppeeku ñàng parce que dañ ko ne am nga doom bu jigéen ba pare ñoom ñuy askan ne yàlla doom bu jigéen waaye ndeke malaaka du doomu yàlla malaaka lan la ah malaaka lan la jaamu yàlla ibadullah ay jaamu yàlla lañ ñoom malaaka yi wahum la yaakuluun duñu lekk wala malaaka day lekk wala yashrabun duñu naan ci gàttal malaaka mooy robot xam ngeen robot malaaka yi ay robot lañ yàlla defar ñu nekk ci service am yàlla jox na leen kàttan ñoom malaaka yi mën nañoo yor ay forme mën nañoo soppeeku jóge ci malaayika nekk nit am na benn malaaka bu daan ñëw ci yonent bi nu mu tudd jibril su daan ñëw ci yonent bi benn melokaanu saxaaba la daan jël nu mu tudd jibril malaayka la da daan ñëw ci yonent bi waaye bu daan ñëw day yor benn forme saxaaba saxaaba bi nu mu tudd dihiyatul kalbi dihiyatul kalbi melokaanu saxaaba boobu lay lay jël su ñëwee wax ak yonent ba dem ñu yaakaar ne malaak ñu yaakaar ne saxaaba boobu la woon fekk du saxaaba bi jibril la woon jàng ngeen ci xadisu umar lu muy wax bayna maa nahnu julusun inda nabi sallallahu alayhi wa sallam istala alayna rajulun sadidu bayaadu siyaab sadidu sawaadi shaar laa yaarifu minna ahad benn bis toog nañ rek ci wetu yonent bi saa sallam rek benn waay ne tëng yére yaa ngi wax tal kawar gaa ngi ñuul kooku kenn ci ñu toog xamu ko ba mu toog ci wetu yonent bi saa salaam kooku bi muy ñëw melokaanu lan la ñëwee woon nit parce que Omar mi doon nettali ci melokaanu nit la wax kon malaayika yàlla may na ko muy soppeeku di nuroog doomu aadama waaye malaaka summahum laa yaasuuna allaha ma amarahum wa yafaluuna ma yumaruun malaaka du mooy yàlla lu ko yàlla sant lay def lu ko yàlla santul du ko def ñoom malaaka yi leen yàlla wax rek guddi ak bëccëg ci la ñuy nekk lu yàlla santaanewul seen yoon nekk ci duñ ko sax jege malaaka du mooy yàlla parce que yàlla togg ko jëf malaaka du julli du woor parce que sant ñu ko ko malaaka amul takliif bu ko yàlla takliif nit ak jinne lañ takliif amma malaayika amul takliif hmm? moom kenn sant ko julli kenn sant ko koor kenn sa- moom daal lu ko yàlla wax defal mu def lu ko yàlla ne bàyyil bàyyi yow ma xiyam kenn du laaj malaaka yi nit ak jinne la yàlla di taxawal parce que ñoom lañ sant ñoom lañ togg jëf juróom-benneel annahu la yayas wala qunut jullit du découragé ci yërmande yàlla jullit du yàkkeeku ci yërmande yàlla laa taqnatu min rahmatillah inna allah yaghfiru zunuba jamia bu leen découragé léeg-léeg nga gis benn doomu aadama boo xam ne nit ñi sax dañoo découragé ci moom daan nit kii doo fi baaxati non non wala benn doomu aadama ne man dootuma amati déedéet benn doomu aadama mu ne ah damay bàyyi lii seeti leneen déedéet loolu fan lañ koy jàngee wallahu qadirun ala kulli shay yàlla mën lépp yàlla bàyyi na ba ibrahima am téeméeri at mu may ko doom yàlla bàyyi na ba aada ibrahima am téeméeri at mu may ko doom ibrahima découragé wu doon ñaan yàlla rek yàlla mooy maye maadaama xam nga yow yàlla mooy maye ñaanal yàlla sax ci rek continuer ñaan comme yàlla mooy maye yàlla dina la may waaye découragé jullit du ko def fa haa huwa alxaq jalla wa ala yarzuqu saara bi waladin baada an saarat ajuusan mbokk yi saaraa ngi nii soxna ibrahim alayhi salaam yàlla di ko may doom ginnaaw ba mu nekkee màgget ginnaaw ba mu jaasiree mënul am doom walakin allah iza arada amran hayya asbabahu yàlla bu nammee def mbir da koy préparel ay sabab bu sabab yi amee rek yàlla daal di sottal mbir yi qad jaala allahu li kulli shay'in lu nekk yàlla utal na ko dog dayo dig lu nekk yàlla utal na ko sabab keroog ba yàlla bëggee may saara doom mu am juróom-ñett fukki at nekk màgget mu jigéen nekk ku jaasir yàlla may na ko doom kon jullit du découragé li nga gis fi ku bëgg a am doom mu jaral ko mu dem di sangu ci ay ndëpp wallahi dem ay góor di ko sang man gis naa jigéen ñoo xam ne bëgg a am doom dem nañ ay góor sang leen am na ci koo xam ne sax sëriñ bi ko doon sang dafa sëy ak moom am na ci koo xam ne sax sunnit la mu dem sunnit sëriñu sunnit bi sëy ak moom waaw ci koo xam ne ab sunnit la mag a mag jabaram bëgg am doom dem ci benn sëriñu sunnit sëriñ bi sëy ak moom waaw ndaw si denc affaire bi denc affaire bi affaire affaire bi sonal ko moo ko jëkkër ji jëkkër ji denc affaire bi denc affaire bi affaire bi sonal ko mu ñëw wax ma ko wax ma diw la moo sëy ak sama soxna waaw moo ko yaa ko def doom yàlla moo koy maye kenn du bëgg am doom dem di sangu ji ci ay xàmb wala ay góor di la sang te loolu bëri na trop ay jigéen yoo xam ne bëgg am doom jural na leen ñu dem njaaloo ak yeneen góor pour am doom pour ñu ne doom boobu seen jëkkër moo ko jur te àdduna jara jaru ko fi te yomal xiyaam lu jege la mu ngi ñëw nit ñi war nañ koo bàyyi xel ba yenn yu baree baree doom doom bi nga bëgg a am est-ce que xam nga doom bi bu juddoo lu mu lay jëriñ am na ñoo xam ne seen doom ñoo leen di yóbbu safara jàngeen ko ci alquran amma alxulaam fa kaana abawaahu muminayni fa xasina an yuriqahuma riyaanan wa kufra yàlla nee na ñaari waay ya xale ba ndeyam ak baayam ñu gëmoon yàlla lay fa kaana abawaahu mu'minayn yàlla xam na ne xale bi bu màggee day orienté ndeyam ak baayam ci kufr yàlla wax nañ ko rey balaa muy màgg kon ndeke doom doom doom joo xam ne bu ñëwee moo lay yóbbu safara baaxul amul njëriñ ba àdduna bi tey fu mu toll bañ a am doom sax moo gën ndax xamoo sa doom saa yoo amee doom responsabilité la te dinañ la ko laaj yowmal xiyaam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati qu anfusakum aleykum te boo amul doom kenn du la woo di la laaj sahaaba bi dafa toog ba càgg mu jooy jooy yu métti mbokk yi ne ko looy jooy mu ne ajastu an nafsi wa kullukum an ahli man sama bopp mënumaa dugg àjjana yàlla jëlaat sama njaboot teg ko sama kaw loolu laay jooy man sama bopp mënumaa góorgóorlu dugg àjjana yàlla jëlaat sama njaboot teg sama kaw lan lañ ko wax lan la ko yonente bi wax wa hasbuka an taamuruhum bima taamuru bihi nafsak li ngay digal sa bopp ci lu baax digal ko sa njaboot bay dem jàkk yóbbu leen bay julli julli nañ julli li ngay lu baax li ngay def fexeel ba sa njaboot di ko def mais gis ngeen tey aka bëri ay paa yu nekk jàkk seen doom yi nekk stade aka bëri ay paa yoo xam ne ñi ngi ci mbalaanu wasifa yi seen doom yaa ngi ji rab beeg bëri beeg lu kenn xamuta aka bëri ay góor ñoo xam ne seen doom yi genn wàll gépp dañ leen a ëmbal seen doom yu jigéen yi ci mbedd yi la ñuy fanaan dañuy jaay seen bopp ak bëri loolu responsabilité la mbokk yi saaraa ngi nii découragé wul ci màgget bu mu màgget mook borom mook borom këram Ibrahima ñu taxoo di ñaan yàlla ba yàlla tabaraka wa taala wërsëgal leen doom ci jamono joo xam ne kenn yaakaarul noonu saara dina am doom juróom-ñaareel bi ñuy jëlee ci dars mooy ann al mumin yatamanna achar laa yatamanna achar li ahad jullit du bëggal kenn lu bon ann al mumina laa yatamanna achar li ahad walida faqad raayna kayfa ibrahima alayhi salaam lamma alima anna al malaika nazalu litadmiri wa ihlaki qawmu lut axasa yujaadiluhum wa yaqulu lahum laallahum yuminun jullit du bëggal nit du bëggal nit ñi lu bon dal seen kaw ndeysaan loo loo mere mere mere ay nit loo leen bañ bañ bañ bañ bañ doo leen yéene lu bon xoolal ñun tey waxuma la sax nitu tarixa yi mais ñun ahlu sunna suñu biir rek day is ku yéene nit lu bon waxuma la nga yéene sa mbokk jullit lu bon waaye boo sañoon du yeewu ñaata ci ñun ngay gis ñoo xam ne boo leen ne asala ñu ne la salaam wala kola nuyu sax duñ la ko yéene jullit wala ibrahim malaaka yi ñëw nañ ba mu xamee malaaka yi lan moo tax ñu yëkkati leen mooy dañuy bombardé ji nitu luut dañ leen di alagi ji ndeysaan ibrahima am yërmande ci ñoom di discuter ak malaaka yi naan malaaka yi xaar leen tuuti ñooñu amaana ñu gëm xaar leen bu leen yàkkamti wala ibrahim parce que yéenewul ñooñu lu ñuy bon bon ay góor jigéen lañ mais ibrahima yéenewu leen lu bon ñun nag waxuma sax ñeneen ñi nekk ci stade yeeg ñi nekk ci danse yi yeeg ñi nekk ci sàngara si waaye ñi nga xam ne dangaa bokkal ak ñoom jàkk doo leen yéene lu baax jullit xolam du ci yéene nit lu bon waxoon naa leen ko démb saaba bi doon toog len di saasaam jékki-jékki ne nitu aljanna ngi ñëw moo ko ñetti yoon kooku bi ñu xoolee ay jëfam du ay jëf mais xolam la wax xolam yéenewu ci nit lu bon jullit du dencal xolam lu bon nit rawatina say morom Ibrahima a ngi nii ndeysaan di discuter lamma alima anna al malaika bi mu xamee ne malaaka yi nazalu li tadmiri wa ihlaaki qawmi luut dañoo wàcc ngir bombardé nitu luut axasa yu jaajilu mu tàmbali di dàggasante ak malaaka yi di werante ak ñoom wa yaqulu lahum mooy naan leen laallahum yuminuun ah xaar leen mën ngeen may tuuti ñoom mën nañoo tuub ci waxtu yu ndaw ndeysaan fa lamma alima anna hadha al amr jalla wa ala ba mu xamee ne loolu mbir la nag bu jógee ci yàlla yàlla moo ne ñii dootuñu tuub dootuñu baax sakata inde zalika mu daal di noppi maandu ci mais ba mu ko leeree ne mbir mi moom malaaka yi kese la woon malaaka yi waxuñu ko woon ne yàlla moo ñu jox ndigal dafa doon discuter ak ñoom parce que bëggul lu bon dal ci ñoom kon noonu lañ war a ëmbalee nit ñi yërmande yërëm leen c'est parce que ñu bari ci nit ñi xamuñu am na loo xam ne ku koy def xam ne boo ci dee safara ngay dem doo ci continuer yonent bi saa sallam bu yónni woon sahaaba yi lu muy wax innama bu istum mu yassirin yàlla da leen yónni pour ngeen yolomal ngeen ko yombal bokk na ci riwaaya li mu doon wax yassiru wala tuassiru yombal leen bu leen jafeñal yombañal leen yàlla wax na yonent bi wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin yonent bi ku bëri woon yërmande la toog na ci jàkka ji ba jàkk rek benn waaye daal di ñëw saw ci jàkka ji seen jàkka ji su ci nit sawoon lu ngeen di koy def dañ koy fët da nga booy bi neen dañ koy fët ku demoon ba Touba saw ko luñ koy def luñ koy rey ku demoon ba Tiwaawan saw fa nag koy rey pourtant nit saw na ci jàkka yi gën ñetti jàkka yooyu seen jàkka ji nit saw na ci jàkka ju ko gën nit saw na jàkka ju gën Touba nit saw na jàkka ju gën jàkka Tiwaawan te kenn reyu te ba mu koy def ci jamono yonent bi la ko def ci kanamu yonent saaba yi tëb yor ay yat bu ko dóor yonent bi ne bàyyi leen jàmbur mu saw waa ji taxaw saw ba doyal daal di dugal ay bagage am ci tubayam tëj gees di xool saxaaba yi ni leen ni leen ni di leen xullee ay bët yonent bi ne sotti leen ci sawi arab bi ndox ñu dem jël benn baagu ndox sotti ko ci yonent bi xëcc ko mu toog yonent bi ne ko place yu mel nii kenn du ci saw fii place jaamu yàlla la waa ji daal di xool ndeysaan ni ko yonent bi yërëmee ak sahaaba yi ni ñu ñànge ci kaw mu ne allahumma arhamni warham muhammada wala tarham maana ahad yàlla yal nag ma yërëm man ak yonent bi kese keneen bu ko yërëm yonent bi ne ko dayyaqta alwasiata xatal nga lu yaatu xatal nga lu yaatu mu ne yonent bi lan laa xatal yonent bi ne ko yërmande yàlla dafa yaatu ñii say mbokk lañ dugal leen ci bul bul ñaa bul ma ñaanal man ak yow rek ñaanalal waa ji sa mbokki saxaaba yi ñaanal leen ndeysaan waa ji musul daje ku mel nii ku yaatoo nii mu ne ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah waa ji daal di tuub boroom xam-xam yi doon firi hadis bi ñu ne ñett la ñuy jëlee ci hadis bi ñett bu njëkk bi mooy yonent bi fexe na ba saw yi tasaaroowul ci jàkk ji ndax waa ji bu doon saw ñu koy dóor yépp lu ngeen xalaat ci loolu saw yi fu muy dem fépp lay wër kenn du xam kenn du mën a wis jàkk ji waaye yonent bi bàyyi na ko mu saw benn place ba saw yi jeex ñu mun koo wis saw yi tasaaroo kooku xikma la ci loolu ñaareel mooy yonent bi sëve na waa ji ci feebar ndax kuy saw ñu lay ndulli ay bolde saw yi day continuer wala day arrêté day arrêté da ngay dagg saw yi te parewu ku doon dem àll ba sax ñu fekk la fi nga toog pes la sa dem àll bay day arrêté waxuma laag nag saw yonent bi fexe na ba saw yi génn ci waa ji ba set ñetteel mooy yonent bi sëfi na waa ji reyuñu ko sëfi na ko ci safara parce que waa ji bu ñu ko reyoon fu mu jëm ku saw ci jàkk ñu rey la safara nga jëm direct xool yonent bi lu mu musal ci waa ji waa ji deewul dem safara mujj na nekk jullit ndax lan yërmande gu yonent bi ëmbal nit ñi moo tax keroog ca fatxu màkk ba ko waa màkk ne ba mu ne waa màkk ma za tazunnuna anni fa'ilun bikum lu ngeen yaakaar tey laa leen def ñu ne ko yow ku baax nga mbokk mu baax nga doomu ku baax mu ne dem leen baal naa leen sallallahu alayhi wa sallam bu doon yow tey fii la rek laa ilaha illa da nga naan yeew leen ñëpp taal leen sotti leen essence taal moo tax jullit ñi war nañu xam li leen yàlla jox du du lu ñuy ñàkk yërmande déedéet maanaam lu ñëpp lañ war a yërëm ñëpp ñëpp war ñoo bàyyi kenn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ëpp ñi mu dugal ci lislaam ci jikkoom la leen indee ci yërmande la leen indee benn bis doon na doxantu di ànd ak ay saxaaba ñu dox ba jib benn yoon yoon boo xam ne ay agresseur ñoo fa nekk mu jub yoon bi rek ñaari saxaaba yu yuuxu ne ko fii kenn du fi jaar mu ne lu tax ñu ne ko ñaari agresseur ñoo fi nekk te mu ne leen ci ñaari agresseur yooyu la ma yàlla yónni ci ñaari agresseur yooyu la ma yàlla yónni yont bi dugg mbedd bi ñaari mètre rek ñaari gaa yi ne tëll ci kanama waaye mayu leen ñu njëkk a wax ba mu leen séenee rek mu leen yéen ñaari jaami yàlla yi lu ngeen dugg fii ci place bii gaa yi ne ah commencé bëgg a nëbbatu mu commencé di leen daaw ñaar ñooñu noonu lañ tuubee nekk ay julit dégg ngeen ñaar ñooñu noonu lañ tuubee kon jullit mooy koo xam ne laa yatamanna charu li ahad doo bëgg kenn musiba dal ko rawatina muy dem safara laa yatamanna acharu li ahad doo bëggal kenn mu dem safara comme jikko ibrahima alayhi salaam wala ibrahim nitu luut ay góor jigéen lañ waaye ibrahima bëggul malaaka yi mbugal leen ba muy discuter waaye ba mu xamee ne nag ah lii kat benn santaane la bu bàyyi ko ci yàlla sakata inda zalika li annahu la yajuuzu an yujaadila fi amamirillahi jalla wa ala ndax daganul muy discuter ci mbir moo xam ne ci yàlla la bàyyi ko ndax yàlla tabaraka wa taala moo yónni malaaka yi na malaaka yi mbugal waa dëkk bi ba ko loolu leeree dafa noppi mbokk yi juróom-ñaari tomb yi moom la ñuy jëlee ci leçon yuñ jàngoon fan yi passé ci histoire Ibrahima alayhi salaam yu ñaan bur yàlla tabaraka wa taala mu def si ñun dégg ak topp li ciy njuum te ñu ngi koy jéglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh